fukki kilomètre ak juróom ci digganteem ak ñoxo fukki kilomètre ak ñaax digganteem ak Ndofane Dingiraay di ab dëkk boo xam ne ña fa yeewoo ñu ngi tollu ci ñetti junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ñu sosoon ko ci atum 1951 ci dëkk bi bokk na lu ñuy faxal di nemmeeku muy lu soxal wàllu mbay mi waaye itam njaay ak njënd loole tax ba ñu dippee ko tur wi waaye tam utal ko ab luma euh, dippee ko luma dingiraay ginnaaw bi ñu ñëwee ci marché bi fekk ko mu toog muy ab soxna moom nag daal di nuru ku sedd ginnaaw ba ñu ko dékkee suñuy micro Fatou Touré bàyyeekoo ca kër Ayeen bokk ci ba ñaseen ñëw jaay si li nga xam ne mooy naana. dama bayam naana moom ñëpp ñëpp doon bay waaye léegi dafa am ñax goo xam ne mooy yàq naana bi. ñax gi nag man indi naa ko fii am benn euh, béykat naa bu ma ne ñax gi mu ngi tudd Israël ma ne ko euh, ñun xamuñ ko woon mu tudd mu ne ma ñax gaa nga mu ne léegi boo koy dindi danga koy buddi ba mu jeex nga wàq fee def ko maanaam kamba kam kamba daal sul ko fa bàyyi ko fa di ko euh, di di di toxal naanaa bi ba nga xam ne am maanaam ba na daal si biir nga dara ko fo mën a sambaat tant que defoo loolu doo tàggu ñax gi bokk na ci lu muy biral ci ay kàddoom ba tey moom Fatou Touré mu yenn ci anam ya ñuy dundee foofe ci dëkk yeeg dëkkaan yi. di ko da nga wax ko bàyyi lii jàppal lii bu ñu joxoon bu ñu bu ñu jëlee fii nii bu ñu joxoon place bu ñu jaayee naana bu ñëwee toog ci di ñaay naan ak bisaabu xonq yooyu jaay sew yooyu ku ñoo xam ne fii place nanga la ku yut ñu ne demal place sàngam te tànk defuñ loolu nag si jaayul suñ liggéey du dox ndax ñun fi mu nekk nii xam naana di wër di dox dinaayu tàng yi loolu am jaru ko doxul daal